maaleykum suñu mbokk internet yi ñu seetaan jamono ji ci seen TV mag bi nga xam ne moo di sunu TV di daw fi nga xam ne moo di ci internet bi yéen a ba ko gën a xam dootul leen naatamle ba tax ne ku abonné woon wax leen ko seen mbokk ne dañoo nar a cartonné daw leen abonné ji gaaw ndax nee leen tungu ne du teew mukk ñuy naataal gis ngeen na mu mel 2019 roy dàq lañ nar def ba tax na noonu lay demee saa su ba tax na du ma ci wéet benn yoon ndax nee leen nu ci àndoon ay nit 2018 wala romb ko di dem tax na du ma ci wéet benn yoon damay daal di dugal samay euh, doomu am di jàmm rek ñoom it ndax nee naa leen ni mu cartonné 2018 ñaan naa yàlla 2019 ñu def lu ko kon ba tax na Jufa ñoo ko bàyyi lay daal di bàyyi mu dugg si moom it euh, frère nuyu naa la. delloo ziar nuyu naa la bu baax yaa am jàmm bu baax a baax sant yàlla ma bàyyi la kon nga wax ak askan bi wax leen yaay kan. incha allah salut tout le monde euh, c'est Abdou de suñu TV incha allah am na affaire yu baax a baax a baax affaire yu doywaar yi ñuy préparé incha allah ci deux mille dix neuf bi deux mille dix huit bi vraiment dóor nañ affaire yu baax macha allah. Uh-huh. toj nañ fi. Uh-huh. ah def ay émissions yu doywaar. Uh-huh. bii nag dañu ñëw ak ay innovation de taille. mais yow kon ci gàttal daa mel ne am na loo dencal gars yi deux mille dix neuf. surprise yu doywaar. on va casser la baraque. yaa ka wax de man maa wax lii. yow du waaw bindal daal bu yaboo ñu lay xaar daal. dinañ jël seen temps. dinañ jël seen temps kal suñu TV. Ah, loolu du yomb. incha allah dinañ eh. gis lu ñu mës gis. lépp muy xewee affaire yu bees tàq. fu muy fii suñu TV. fii suñu TV amul benn. ay ceex ba tax na kon mi nga ñoo ko déggandoo noonu lay demee sa su ne eh, ci suñu TV ndax nee naa leen tungu ne du teew mukk ñuy nataal làbb lépp fas taxu la fas a a nga ca kanam ba tax na dañ ko defee 2018 noonu lañ koy defee waate 2019 ba tax na du ma ci wéet benn yoon ah sister ni nga def baax na gis nga. waaw 2019 moo xew. moo xew. waaw moo tax nga war a xew ànd ak moom. waaw gis def sa yu baax yi. def lu simple rek. ñëw nar a fii toj. ñëw wàcc ba. zéro. ñoo ko déggandoo kon mbokk internet yi sunu TV kii mooy la Sista Dia yéen a ma ko gën a xam nag ndax nee naa leen toj na fu ne dugg na fu génne na ku ne ku lu ndaanaan ànd na ak yow fu ne waaye 2019 bi dama bëgg mu gën a yéegal niveau am ba tax na dañ koy bàyyi micro bi. loolu dafa leer sama gars yi maa ngi leen di ziar di leen xaar ci 2019 bii nga xam ne dañ fi war a toj wàccee ko ba zéro wala ba zéro virgule cinq. yow daaw da wàcce woon. ren dama koy continuer. da damay exploser fii fii toj suñu TV rek. Mm. xaar leen ko nànk. kon ma ne Eh? dem leen abonné ma ne li ma leen njëkk wax sax mooy kon mbokk yi ku ci yor ànd bu ne ku ne ànd cuuraay laa la wax de bu mu ndamba ci doom ndax nee naa leen la système mi ngi ñëw dafa leer ñu indi yu bees tàq yoo xamante ne maam yi ñoo ko fi bàyyi woon man aji ak suñu TV ñun eh. ñoo koy dëkkalaat gars yi ci kanam jaajëf ay ca mi ngoog torojo morojo bi ta ban lay daal di doon ci sunu TV ndax nee naa leen tungu ne du teew ñii ne taal du yomb kon tax narta sax yomb na naree yomb rek man ak sama caméraman ak sama réalisateur ñu dem toogi fële noonu lay daal demee waaye nee naa leen eh, fi ngeen teg seen loxo foofu la sunu TV mooy bës te mooy bomb waaye duma ci wéetit benn yoon ndax nee naa la kër gi dafa yaatu kër gi dafa rëy macha allah chapala sapa dëgg ndaat saay ba tax na damay doxantu jiwaat daal di jëliwaat sama rakk bopp ji tarkala mu di ah, man tur bee ma njëkk yéem tur bi daa cartonné 2018 tur bi ñëwaat yi naan 2019 bi moom la xaaraat xës ah. <laughs> as wax nga ko. wax naa ko first choice. first xam nga ni ku nekk ci lu muy yëngu bëgg naa nekk first choice. Ah. léegi man bu ma bëggee nekk first choice 2018 nekkuma ko gars yi neen 2019 foog nga dugal ma ci first choice bi. xaar ma. di nga ma jël. maa ngi ci sañse yi. Uh-huh. maa ci soirée yi. Uh-huh. xaar ma ci lépp. ñoo ko déggandoo mbokki internet yi ba tax na noonu lay demee yéen a ko gën a xam moom xës ñu ko gën a xam ci xës choice ci yàlla barki torojo ma rajo bii taban ndax nee naa leen sunu TV eh mooy sunu TV kat ci internet bi mooy sunu TV kat ci Sénégal mooy sunu TV fi nga xam ne moo di partout dans le monde. rawatina fi nga xamante ni moo ci diaspora bi xaar leen ñu kat ñu ngi ñëw waaye eh waaye lii lan la waaye bëgguma lii waaye sunu TV lii lu muy def nii waaye waaye déedéet waaye waaye déedéet waaye ah sister naa la. waaw ah, fay naa yaa ngi am jàmm. sant yàlla bu baax. ma bàyyi la ak ñi lay seetaan Adja bu Serigne Saliou. asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum waa Sénégal. Euh, yéen a ngi seen euh, sunu TV tubaarkaal nee naa la 2019 dafa nar a neex. Ah. dañ koy daal di wàccee. man pëtëxal ko ah. na xamee ne di ko wàcce sax mooy man sa xeetu yi nga def nii yii dafa xee bokk ci xeetu pop yoo xamante dafa ñëw rek bokk ci 2019 bi. dëgg neexul. tubaarkaal nee naa leen at bu bees dafa nar a neex ba tax na dañuy andi lu neex. lu neex a neex lu bees tàkk tubarkalla. naa leen man xale déranger man xale lakkat man damaa lakkantaan fu ne laay dugg. ku nekk fa nga nekk yaa xam ngay kat ngay woykat ak ci loo mën a yëngu dañ lay fekk fa nga daal di nekk tàllal la suñu micro ñu daal di waxtaan lu yaatoo yaatu xam nga 2019 tubarkalla dafa war a neex. ndax 2018 bu neexee. 2019 dafa war a neexee ah, ah bon. Ah, ah. moom kay fi mu toll nii janax ji mën a gas ku ne nanga bàyyi sab gas arrêté sa gas ndax ki war a gas ku ne gas na ki war a gas a ngi nii. ndax nee na 2019 bi dafa war a neexee neex. voilà di wax naka ah, ngeen toog xaar lu neex a neex abonnez-vous ah day yokk leen abonnement yi mu gën a neex ndax tubaarkàlla mooy loolu daal. di leen jaajëfal bu baax bu yem fii. Ah. dama ne gars yi yéen ñu ñuy seetaan yéen ñu ñuy gis. ci mm-hmm. site internet bi. dama ne ñëw leen abone mm-hmm. suñu TV. Mm-hmm. yéen a ngeen koy gis ñu ngi koy bindee. S leen ko wax ñaari yoon. Eh. suñu TV la. suñu TV. dam leen abonné yi on va casser la baraque. Eh, dafa leer dafa leer. kon ñoo ko déggandoo suñ bokk internet yi ah. dana toj xale dañu nar a fëlaale. Mhm. sàndeeku def la leen saf. tubaarkaat ma ne suñu TV dafa xew. télé jeunesse la ma ànd ceeg taalibe mi nga xamante ne suñu Bamba rek la yaakaar. maa la wax loolu bokk ñu yaakaar bokk Serigne. taalibe Serigne Saliou baa ngi di. Ah eh, ñun taalibe Cheikh yi nañ ñëwee nii <laughs> taalibe Cheikh nga ñëwal lii. ayca ba tax na mi goog sotti ceeg def ci. sotti ceeg def ci si mhm. suuf si. ñoom ñëpp ci la ci bokk kon ba tax na mi nga mi nga kon ndeysaan émission yu bees yeneen démarche yu bees incha allah di ngeen gis ay innovation de taille ay émission yoo xam ne niveau bi beneen level lay doon lu bees tàq di indi yoo xam ne nii c'est inédit waaw yu inédit franchement mm-hmm. waaye scotchez-vous li li li papa Youssou Ndour naan dara du ko daal mooy dara du ko leen ko fii si suñu TV rek lay mën a xewee. ay ca kon ba tax na mi ngoog suñu mbokk internet yi yéen a ma gën a xam tungu ne du teew mu ko ñuy nataal gis ngeen ni leen ko askan bi waxee gis ngeen li nga xam ne moo di sama ñu jongama ma yii ah, sama jantalmaan yi ni leen ko waxee waaye man kenn demul ma des. accum torojo morojo bu ne biita ta ban nanga koy xaar jël leen boobu te daw abonné di gaaw maa ngi ñëw léegi léegi